alors ba tey rek mbokki internet yi ñi ngi fi nga xam ne moom moo di ngénte Moussa Versailles ñu fekk fi nag Papa mbay Dieye Faye alors dañ koy raaj rek lan moo waral teewaay bi tey ginnaaw biñ euh, naa leen yéen tamit ah. defe naa suma juumul lan laa gis elo laa gis bon si yëpp daj ah waaw ñëpp dajaloo ko ba damay kontaan teew fii benn li ko waral moom mooy nit ak nit. beneen bi ci topp moom mooy euh, nit ak nit li ñu seex Moussa Versailles moom nag képp turam boo ko tuddee ñu ci bari dinañ ko xam xam li parce que moom balaa nga koo gën a xam sax nga fekk ko États-Unis fekk ko États-Unis Moussa euh, su ma gisee bu njëkk man ak moom fu ñuy wax Brooklyn la ñu dem fa ak Youssou Ndour ak Super Étoile am liggéey buñ fa doon def fu ñuy wax BAM euh, ma jékki-jékki ñu woo ma su ma nekk ne ma am na ku lay seet may leen away ah naka la tudd ñu ne ma Moussa Versailles ma ne ah tiens d' accord ne ko maa ngi wàcc wàcc ci hall bi ñu gisante saafonte mel ni xamante ne nu nag man ak moom di dix mais boobu fekk na tamit mu xamanteek suma ay frère ku ci mel ni riche ak Elie Diagne xam nga ñoom comme yàgg nañ Amérique ci ba ma ni ko ñu waxtaan ma ni ko mu ne ma grand man dama la sopp lool lool lool lool dama la bëgg lool ma ni ko lu tax mu wax ma ay qualité yu ma sopp ci man waaw qualité euh, ni nit war a mel ma ni ko yow tamit dégg naa sa ay jëf sa liggéey sa ay qualité mu nekk nag na bu mag tu vois nekk designer bu mag ndaanaan yu bari États-Unis surtout côté jigéen ñi ku ci mel ni BMC classe googu ñoom ñëpp sol nañ yére Moussa mu nekk euh, nit bu jàng métier ba mu mokk nag di ko doog a def di doog a beru tu vois mën li muy def musa lu mu créé bu ko nit sole rekk nga xam ni wax fa dëgg yàlla ki liggéey lii benneen bi muy sa fam ma nièce Yaxara léegi rek mi ngi ma naan tonton Thiané ku baax la ma ni ko bi may ñëw ci yoon bi rek su ma téléphone mi ngi sone ma décroché muy Thiané mi ngi ma naan papa mbaa yaa ngi dem Petite ko ci musa ma ni ko maa ngi nii ci yoon bi dama waroon fekk ci tudd bi sax mais comme Dakar moo ma xaw a bloqué tu mais xam nga nit amul lu dul bésam gis nga ko xeebal bésam xeebal nga ko léppam nit amul lu dul bésam euh, nit amul lu dul ni mu mel et man ci yooyu lay dox quoi loolu laa xam man dafa am yu may daaneel ci doomu aadama te yooyu ci la bokk beneen bi mooy dafa am yar Moussa bu ko neexoon comme ni ko ñeneen ñi di defee ñenn ñi pëtti pëtti maanaam sa xilaaf waaw waaye moom nit bu dal la ko bu yaru bu fonk doomu aadama buy waxee yow ndànk lay wax du sëggi sax xool la defe naa yéen def ngeen remarque bi du nit boo xam ni day yëkkati boppam suufel ñi si des melul noonu ba ci liggéeyam boo ko gisee par exemple ak Viviane euh, bu koy solal da koy gis mi ngi daw topp ci ginnaaw rob bi def jógin te bu ko neexoon mu def comme yeneen ndaanaan yi nii def takk costume cravate taxaw fële ay employé di daw di toppatoo lool mais noo moom moo koy def topp ci ginnaaw rob bi di xool di ko soigné daal pour bu kim koy solal yéegee ci kaw seen bi ñëpp ne ah donc moom noonu la mel tu vois lu ma ko waxal rek moom dafay am lu des dafay am lu des nii mu mel nii nag nii la mel dafay am nit yu mel noonu dara mënu leen këf nu nu mel ak lu ñu am dara mënu leen soppi ni nu mel rek la ñuy mel naturellement rek o calme xam nga ànd ak dal terewul di def liggéey bi normalement ba nga xam ni ku la gis nag ak loo wàcc wàcc wàcc wàcc ku la gis da lay jox sa cër donc Moussa est comme ça et sa femme nekk xale bu baax yaxara mais euh, moom bu ko générosité toppee jaadu na bu ko baax toppee jaadu na parce que papaam moo tax moom yaxara son papa Touré bu yégoo ñuy seetaan buñ déggee dina xam li ma wax papaam footballeur yu bari ngay dégg ni papaam moo leen defar papa yax yaxa Touré di jël xale yi di leen yóbbu Europe ñuy football ba tey suñu football sampu ñoom Omar Dieng yaa ngi dégg ba ci ñoom Sadio ñi ñoom euh, Cheikh Hock bu ma limee dinaa juum quoi xale yu bari dañu jaar ci loxoy papa yi yaxala am na solo alors mais Père Mbaye du ñu toog ak yow ba jóg te wax dëgg yàlla euh, duñu ñu la laaj ci ci wàllum showbiz parce que gis nañu jamono ji showbiz bi ak coow li ni mu bëree sa doom yi diggante euh, Ramdan ak li nga xam ne moom moo di Subatel Ndeye Ndiaye Balla yaa dem na fecc feeg yi ni yow nga nekk papa tey boo doon wax rek ci ay kàddu yu rafet ci coow li nga xam ne dox na diggante jamono ji ci Ramdan ak Subatel. bëgg moon sax ñu ñàmbaas sër bi. Ah waaw ñàmbaas ko xam nga lan mooy ñàmbaas. Mm-hmm. mooy sër bu guddul ñu njàmbaas ko moo tax mag ñi naan yàlla bu mu yëbb donc man li ma ciy wax yàlla bu mu yëbb tey Moussa moo ñu fi bésam bi mu tuddee waajuru yaxara mi moo ñu fiindi man li may wax rek moom mooy comme ni ma ko yàgg di waxee ñun ay doyen lañu quoi xale yi nii suñuy doom lan ñii suñu ay jarbaat xam nga lan lay wax aar la ñuy def rawati nag musique du xiiroo wala ŋaayoo li may digal xale yi et moom mooy suma kàddu bi may wax tout le temps nañu musique yaa ngi dégg musique de compétition mission la da nga ciy war a jaar pour boo fi jógee ëllëg ñu ne ah waaye accim non xale yi daal li ma leen di wax moom mooy nanu def ni mag ñi daan def di ko def ba léegi nanu ànd bokk ak ndeeg baay liggéey te moytu coow coow du ci aar rek la bon coow baaxul ci dara coow bu bari baaxul da ci dara yow waaw na nga liggéey def seen liggéey bokk ndey ak baay bon bañ ak laa mit ñoo dëkk ah, léeg ñu laalante mais après ñoom ñooy ñoom ñooy ànd quoi làmmiñ ñooy tax xamte ko bañ yëy du dëgg ci biir gémmiñ kon nag ñoom ñoomi nee na ñoo bokk ndeeg bàyyi ñun doyen yi ñun liñ leen di wax rek moom mooy waxi kilifa nanu ànd bokk ak ndey ak bàyyi musique seen musique am ci liñ ci am nit ñi naw continuer leen leen ci naw parce que nit ñi naw nañ leen donc euh, dafay yokk rek loolu laa am li may njàmbaas ci sër bi ci waa di wax ni nag bég naa